after voilà after ñu wax ci maak yow incha deuxième question ñu dox ko oustaz Modou Fall kii mu ngi naan euh, oustaz en lavant ma bouche au moment de l'ablution je me rends compte que l'eau avait un goût bizarre euh, dois-je changer l'eau et reprendre l'ablution ou pas nee na bi muy jàpp euh, ndox mi daal dafa am goût bu bizarre goût xam naa am na lu mu yëg lu lu mu daawul yëg ci ndox mi est-ce que dafa war a changer ndox reprendre at jàppam. jërëjëf El Hadj Pape. kiy jàpp bu sentiree ñett ci ndox mi rek daf koy changé. bu xeetu ndox mi changé dafay changé ndox. bu cafka ndox mi changé dafay changé ndox. bu couleuru ndox mi changer dafay changé ndox. parce que dafa war a nekk ndox mu ñu war a naan te du la gaañ. ok ndox mi warta am xet. bu demee ci téere bi dafa wax ni taamuhu. aw raihatuhu maanaam bu fekkente ni bii xet gi dafa changé mhm. aw lawnuhu mhm. su fekkee couleur bi dafa changé mhm. ndox mi mënul jàpp su fekkee cafka bi dafa changé ndox mi mënta jàpp su fekkee xetu ndox mi dafa changé ndox mi mënta jàpp mais bu fekkee li ko changé mook ndox mi ñoo dëkk su boobaa day mën a jàpp xam nga loolu tam sew sew la su fekkee ndox mi li ko soppi moom ndox mi ñoo dëkk duñ tàqalikoo jamais mhm. su boobaa ndox mi day mën a jàpp mhm. mais jamono bi ngay jàppee ba galax ndiku yëg ne ndox mi dafa am beneen goût changé ko bu dëkkul ci ndox mi wala xamewuñ ko ak ndox mi su boobaa da ngay tuur ndox moomu rootaat ndox mu bees mhm. jàpp ci ndox moomu mu ngoog loolu defe naa leer na ci euh, euh, tontu euh, beneen question